kontaan rek parce que xam nga nit yor na yor na ne lu ne gàññ toog lu xam nit koo xamante ne yàlla suñu borom da ko joxe moom teraanga di ko bokk ak doomu aadama yi bokk kook ak njabootam ak mbokkam rawatina fi mbokk mooy njabootu waa kër sëñ Asmalik moom yéene saa su ne lu baax am yéene saa su baax nit ko gis ah vraiment loolu nekk na geste noble nekk na kenn ku nekk di nga tey référence ci biir dëkk nekk di nga bëgg am dara def ko kenn ku nekk di nga gis li nga xamante ne lu baax la nga ne yàlla naa mel ni diw yàlla naa mel ni Aziz bëgg a def ba def ko raw comme exemple yooyu muy joxe dafa am solo ci doomu aadama ba tax na daal ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak yaram yàlla may ko wér-wér la saa su ne mu koy gën a mën saa su ne muy gën a yomb ci moom ndax lu baax nit mënu ko def te du ko gis te yaakaar naa ne mu ngi ko gis suñu borom yàlla na ko yàlla defal jàmm. ñu gis ne même jëf ji mu def ci Tiwaawan noonu la ko defee euh, Touba mu mel ni sax dafay joxe exemple que ni euh, këru diine yi benn euh, moom ambassadeur la ci yi nga xam ne ñoom ñooy këru diine yi ngir ñu gën a mën a ñoŋal seen i relation waaw boo seetee mën nga ne Aziz c'est phénomène phénomène la boo xamante ne bëriwul nit di def lii bokk wala boog ñun gisaguñ ko parce que nit koo xamante ne foo dem macha allah mu ngi ko yëkkati ci teraangam da ko joxe jël tarixa yi def leen benn. di dugg di duggante ak ñoom di kaf ak ñoom boo demee Touba noonu Tiwaawan noonu Laayeen ba ci Xaadir ba ci Laayeen ba ci Ñaseen moo xam ku mun di doon ñëpp benn lañ def donc vraiment ñu koy ñaanal daal euh, mooy loolu yàlla na ko yàlla defal jàmm. merci beaucoup démb dafa def témoignage euh, ne euh, tëgg ay làmb mais jàpp ni Balla Gaye moom dafa doon tëgg làmb. waaw ah, non Aziz moom ñëpp xam nañ ne mooy li ma la wax rek lu baax yàgg na ko def man mii di wax euh, je me rappelle bien 2005 laa dugg dugg ci làmb euh, même ba ci mbapat du du tey la may taxaw wala nangam moom njëkk a fay salle de musculation pour ma dem di entraîner pour am doole donc mbaaxaayam ak euh, def li nga xamante ne day taxaw doomu aadama wala xale bu bëgg dara mu taxaw la ci yàgg na ko def waaw tax na daal ñu ngi koy a jàmm rek ay moom ñu ngi